nuyu waa parcelle un ba vingt six waaw di nuyu El Hadj sama doomu ndey ak PDG bu baax a baax di ko saluer de passage. Mhm. victoire bi yéen koy fête ba tey waa parcelle. victoire bi waaw bien sûr <laughs> mais suba xam naa la dernière face to face bi. Mhm. incha allah ñu ciy woo ñëpp. bon di profiter ci occasion bi di wax waa parcelle nañ dañ am bor nañu xam ne tey nit ñi ñoo leen di ñëwal ñu teeru leen. teral leen def ko ni mu gën a rafetee daal dama leen di ñaax rek ndax loolu lañ saxoo waaw. def lépp ci fair play waaw def hmm. dañuy ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo di euh, sa mu nekk euh, koo xamante ni macha allah maanaam nekk mbërëm kenn doot ko naatable ci li nga xam ne moom mooy làmb ci mu àndoon ak ay ñoo xamante ne ay moromam ci li nga xamante ni moom mooy làmb ji mais gis nañ force Modou ba tey mi ngi resté Modou changé wu benn yoon que ñu bëri sax ñu ngi wax naan combat yi nga xamante ni mujj na koo bëre ay xale lañ yoo xamante ni dañoo am foo xamante ni fa teg seen bët combat risque la Modou Lo ñëw ci li nga xamante ni moom mooy làmb jooju wane détermination wane ne xale yi maa leen ëpp doole foofu maa leen dàq bëre tey lan mooy secret Modou Lo entraînement la wala lan la secret Modou boo xoolee mooy li ma leen doon wax rek ci njëlbeen ba Modou Lo guddul rëyul mu opté doon mbër ñu ne mënu ko doon mu ne ma dama koy doon ñu ne guddul rëyul mënul dara ci poids lourd yi mu reyante ci poids lourd yi ba ñu nangul ko mu rayante ba doon droit des arènes lu ko ko may entraînement biñ ne bàyyi na may leen bàyyiwul benn dafa respecté contrat bien vrai que contrat bi xatoon na métti woon na trop ñu préparé Ama Balde ñu war a boorewaat si Boy Niang moins de deux mois ñu bëri woote nañ kon combat bi nañ ko annulé président écrit beeg ma koy nuyee de passage ñu ne dafa gàtt combat duñ ko duñ ko bëri ci moins de soixante jours c'est impossible ma dem ci moom waxtaan ak mu ne ma damay dem États-Unis ñu xoolaat mu xat mun na ma damay damay bëri parce que lan na gaa yi xaatane contrat dañoo xaatim moo tax bi ne Modou Lo ibaadu la bàyyi na bëri may leen non contrat bi dafa nekk ci loosam te c'est un de parole waaw lu mu xasa signé rek da koy def man foofu rek laa ko jàpp mais Modou Lo dafa nekk nit koo xam ne athlète la athlète la dama koy wax nag xëy na dañ naan dafa far sportif de haut niveau la sportif de haut niveau la ni muy préparé aborder combat xam na ko vrai que temps bi xam na nit ñi kii wuñ mais su ma wax ak moom day sama xel moo tax may leen man dama koo gëm ndax daf may wax lii laay def te koy def bu lii laay lii lii dama koy def da koy def bien vrai que si temps bi ci yëpp mu ma dinaa ko gérer te pourtant gérer na ko dem na sax ba indi état bu dàq bi muy doon si Ama donc mooy confirmer rek sportif de haut niveau lu mu xat xat lu mu kii rek dina xam ni mu koy gérer ak ni mu koy aborder te c'est important ñëpp dañoo ne woon euh, maanaam combat bi combat la boo xamante ni euh, maanaam ñu bëri sax euh, dañ doon wax naan ki nga xam ne moom mooy Boy Niang moo ko daak xeex mais gis nañ combat bi Modou Lo dafa xeex ak booy Niang maanaam dóor ko daan ko tey jii loolu préparation bi naka ngeen ko préparé. non même keroog sax Ibakar laaj na ma ci dama xawoon énervé wu parce que tey bu ñu ne Modou Lo moo daak ñaata kaw la am. Boy Niang moo dàq xeex dama ci xawoon énervé wu maa ngi ciy jéggalu parce que dama ne leen Modou Lo ñaata kaw la am Modou Lo ñaata coup la taxaw encaissé ko ci Balla ñaata coup la taxaw encaissé ko ci Bombardier combat am bu ne day taxaw ñaata coup ba ci ñoom kay rek ñaata yoon maa ngi leen booy Niang kan la musa kaw Boy Niang moo gis muy weccante ay kurpej mais nag ku nekk sa stratégie la loolu la bëree ba doon champion noonu la bëree ba ublamb moom tamit dañ ko koy nangul sportif de haut niveau la moom champion. mais keroog sax xeex bi jaaroon na yoon aussi tam. xeex bi jaar na yoon kañ mais Modou Lo da ko waxoon bi. Ah. xeexu box ak xeexu làmb du benn lu nekk dafa ànd ak réalité am voilà. mais nañ tam keroog jël na ay coups booy ñaay tam. mais Modou Lo dafa jël ay coups ñoom dañ jël ay coups parce que dañ ko waxoon ci signature bi et làmb làmb làmb kii la woon làmb làmb euh, lan lañ koy waxatee sax combat royal la woon. munoo ñëw encaisser ay centaine de million ñëw di négocier combat te ñoom ñaar duñ ko doon négocier kii da doon conserver titre am kii ñëw pour jël si ko ba pare kii tamit ñëw doon défendre couleur Pikine di défendre tamit euh, défi bi mu doon relever munoo encaisser loolu yëpp ba pare nga ne du ma jël coup ñoom ñaar ñëpp dañoo jël ay coup yu métti. effectivement mais gis nga keroog Modou a pare teel a def lépp serein ci biir géew bi. Euh, mu mel ni euh, Modou Lo maanaam af wàllu mystique bi sax waxatuñu ko ndax gis nañ ko gis ñaari combat yi mujj yëpp maanaam euh, maanaam focusul ci li nga xam ne moom mooy mystique bi gis nañ Modou boo xamante ni dafa ñëw teel a pare nekk ci ay échauffement am nekk ci li nga xamante ni ci la war a nekk seree daal maanaam mel ni keer yi sa xëppoo ay galaajam mais mu def yëgata loolu lan la tamit hmm? oustaz bi mu doon la léegi wala dafa lan la expliqué yow oustaz nga gis yow oustaz nga gis <laughs> oustaz na du ublamb ah mais comme noonu lañ koy woowee yaa oustaz <laughs> yaa oustaz boobu loolu nañ ko ci félicité bu baax parce que tamit lu jàng boo gis ak alxuraan ca gën ñu tukki yoo gis ak màkkaa ca gën waaw loolu moom dañ ko ciy félicité bu baax mi ngi mel ni booy ñaa ba mu toogee def ay déclaration ma ne fierté làmb la au moins dañuy war am ay intellectuel war nañ mën na mbër war na doon député tey Tyson yee nañu tiitaru làmb la dañ ci war a am ñu bari mais Modou Lo champion de la sportif de haut niveau la champion la ni muy aborder combat xam na sans faute saa yu ñëwee dañuy nangu parce que combat bu njëkk bi contrairement dama ne le roi des arènes mooy ñëw. ñu comprendre dañoo gedd ñibbi mais bii moom mbër mi moo doon ñëw ndax wax ji dafa bari woon te tamit match final la woon quoi saf ak witar bi lañ doon mottali moo tax keroog mbër mi moo ñëw mais li lamb laaj lay def parce que bu njëkk da nga doon ñëw di sotteeku ñu dagg sa bagage jël temps moo tax bi yoon dafa focalisé wu teel a pare. non du bi yoon kay ñaari combat yi ñu mujjee bëri yëpp gis nañ Modou Lo bii la nga non takkaay benn la mais ñaata mën nga gis ñuy takku bu arbitre di siffle nga gis leen ñuy tekki avant ñuy làmb ji di jeex ñuy tekki am na combat boo xam ne nga gis mbër mi ñëw du takku ñu ne mbër mi tey daa ñëw pour bëri si parce que au moins sa adversaire fu mu bañ jàpp ak fu mu dul donc tamit mooy xool lu ko arrangé mu def ko waaw làmb ji laaj rek. mais kan moo leen dese biir Pikine léegi. Pikine comme nekk euh, ngeen. laaj naa la question bi kan moo fi nekk biir Pikine. ah mënul amaat amoo seen revanche mënul nekk. non moom ci ci ci li ma dégg muy wax te lu ma wax rek. dama koy loolu dinañ ci ñëw mais loolu laaj mm, ah, xam nga VAR dafa am mën na am parce que Modou tamit daf benn handicap la am mm. lu amateur yi bëgg rek buñ ko ci sëkkatalee mu nangu ndax daa bëgg la am. mais d'après li mu doon wax moom li mu nekkoon suwee mooy su ma doonee roi des arènes xale yi tey laay bëreel xale yi xew yi donc làmb mën na wëlbatikuwaat coow am ba mu bëriwaat ak Eumeu Sène wallahu aalam yàlla rek a xam. ñaar yi nga xamante ni. mais nekkul suñu plan nekkatul suñu plan de carrière daal. pour te dire vrai xale yi dese na leen quand parce que on parle léegi de Reug Reug ngi waxaat keneen ak Tapha tamit gars yi ñu ngi wax combat ndax yéen loolu yéen ngi koy so nag keroog ba sorti bi nga xamante ne mujj na ko def pour l'instant dani euh, dafa tekkeegum ngemb ba ci kanam. non pas tekki maanaam dafa jël dafay noppalu noppalu voilà. effectivement dafa sonn mooy li ma la doon wax sama njëlbéenu wax dafa métti préparer combat royal dafa métti ak jóge ci bu yàgg ñëw bëre combat ci moins de dafa métti dafa métti boo ko xoolee da nga xam ne kii mun nañu dafa saturé dafa sonn kon tamit am na temps mun a di noppalu dallu tuuti pause c'est normal. jàng boo gis am na àllarba mais effectivement espoir yi ñu ngi fi ñu moom ko lemee rek dañuy bëri ak ñëpp jeunes yi incha allah. non Reug Reug moom bëri wuñu ak moom pour te parce que Franc moo nekk ci digganteem ñu dañoo gis ne Franc la war a bëreel kooku danañ ci catégorique ñun. ñun waa Parcelles mais mais mais moo daan récemment ki nga xam ne moom mooy Bombardier kon yaakaar naa war na mën a bëri aussi tam titre. waaw mais tey dafa fekk tamit bokku suñu plan pour ñu bëri moom pour te dire vrai. moom moom bokku ci close dañ ko close moom. pour mu bëre ak amul chance moom foog mu bëre ak ba pare. parce que Modou Lo Franc rakkam daa gis na ray rakkam du soxla moo ko koy xañ te ñoom ñaar moom moom Modou Lo gis na ne boobu moo gën a jekk Franc Reug Reug dafa jekk dafa jaadu. mais est-ce que xaw Franc Reug Reug euh, raw euh, ko. waaw joxante loxo la Modou rawul booy ndax ma lay laaj Modou rawul booy ñaar. rawul rawul ama boo yi ngay wax mu jox leen loxo rawu leen làmb amul raw maas la damante la yàlla dimbale rek moo fi nekk pour l'instant mun nañ non non loolu moom c'est catégorique c'est catégorique waaw boobu moom c'est catégorique Tapha mën na nekk c'est possible c'est fort possible waaw mais du mën na doon saison bi mën na doon saison début saison xam nga làmb moom mën nañ dañ koy négocier après promoteur dem wuti date te date yi fii xam nañ ne dafa saturé ndax ñun fii la ñuy xëy fii la ñuy gon mais mën na doon fin saison mën na doon début saison ku ñu yàlla booleel daal lu ñu waxtaan ba staff bi dëppoo ci rek buñ tànnee bu ñu gisee promoteur bu ñu aborder rek incha allah dinañ ko Balla Gaye tamit gars yi ñu ngi wax naan Balla Gaye Balla Gaye Modou Lo Modou Lo war na mën a laajaa revanche am ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye. waaw waaw mooy li ma la wax rek tey Balla Gaye yàlla dogal nañ bëri nañ ñaar bëri nañ ñaar yoon yàlla may ko ndam ñaar yoon suñu kaw. ñu koy ñaanal ndam yi jikko mais tamit yàlla dimbali na ñu bëri na ñaar ñu ko daan ñu daan daanaat daan mais Modou moom ci suweewam mooy su ma doonee roi des arènes ñii laay bëreel xale yi laay may chance mais tamit comme li ma lay wax rek ëllëg du añ waaw làmb dafa tëre di mun nañ dem ba coow boolewaat leen leneen waat wala mu retourné bëgg ko loolu tamit ñu bëriwaat moo tax loolu moom du ma ci kii mais li ma la mënta wax daal mooy tey suñu ambition yëpp mooy liñ suñu suwee mooy ay ñu bëri xale yi jànq yi daal ay combat jànq mais xale yi nee nga doo leen bëri ki nga xam ne mooy Reug Reug te Tapha yaakaar naa moom moom moom bu ñu ñoo duggandoo ci làmb wala soreewuñu kon xale yi ñan la ñoo fi des ñu Modou nga bëgg a exclure Sa Thiès mi daan Reug Reug waaw Sa ah, sama ci la bokk yaa ngi nekk champion <laughs> waaw kon pare ngeen pour jël. bien sûr déggoo li ma la ci xale yi xale yi xale yi xale yi du ñooy xale génération benn génération ñun ñooy génération Moodu. c'est que dafa njëkk bëri teel a feeñ teel a allah loolu rek mais ñi ñooy génération yaa gënoon ñi ñooy samay morom te effectivement ñi ñooy moromam te bu ñu bëree dinañ xam ne ñi ñooy moromam. mais Sa Thiès mbër rek rek mi ngay tagg Sa Thiès sa daan. man tax nga bëgg a fàtte rek rek Sa Thiès moom a jaaxal. mais xam nga xam nga ñu bëri tey tey jii internet euh, maanaam ñi nga xamante ne ñu amateur ñu ci bëri boo leen laajee dañ naan la euh, Sa euh, Reug Reug Modou Lo ñu ci gën a bëri keroog Reug Reug Modou Lo lañ doon wax. ok mais parcelle mun ñun bëgguñu Reug Reug Modou Lo pare wuñ ko sax sóoraale wuñ ko sax Reug Reug ñun Reug Reug Franc lañ bëgg. tànk bayu Franc bi. non non tamit waaw tamit. roi des arènes ngay ngeen bëgg a may doole tamit. Franc dafa am doole may ñu ko doole dafa am doole na doole mais est-ce que moom ngeen bëgg a yëkkati parce que tamit bu ñu xoolee comme léegi la bëgg ñu wàccee Franc. Ah. mais Reug Reug na bëri ak mais Modou Lo mënul bëri ak lu mu rawee Reug Reug moo ëpp li Franc rawee rawee kii Reug li mu rawee booy ba di leen tàllal loxo ñu leen di lim di leen jàll. Mm-hmm. rawee wuñ ko Franc. ndax ñoom ñëpp dégg nañ muñal Franc mos a dégg muñal il a fait ses preuves ba pare li tax Franc ñu war a bëreeg Franc ñoom ñëpp ñu ngi teggi Franc da leen a jël Forza ñoom ñëpp a ko teggi muy champion bu soxor Tyson 2 dañ ko teggi Franc ñoo affronté la loolu preuve la Franc li muy wax ci signature noonu lay bëree négocier wu ma combat bugguma combat jàng bu yomb voilà kon moom it dañ ko war a jox loxo ni ñu joxee loxo gars yi man boo tey Sa Thiès ñaar ngi fi gën a kii man moo ma jaaxal muy Franc ak Sa ñooñu man gisuma leen nga leen di tudd te ñoom ñoo fi nekk ñooñu xale yu gën a ës yu gën a pànk ci làmb ji ñoom ñaar la. non rek kenn du ko épargné mais dafa fekk tey ñun ñu gis combat am ak Franc dafa ñu bëgg ko kon duñ ko bëgg ma on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire ñu bëgg rek rek Franc ba pare wala di ko jox Modou Lo àndul ñun bëgg rek rek Franc. Modou Lo ngi doon wax keroog yaakaar naa ci interview boo xamante ni defoon na ko euh, dafa ni moom day bëre. yóbbaale li nga xamante ni moom mooy euh, titre bi kon mun nañ xaar moo leen dese wala ngeen arrêté question la bu nit <laughs> ñaata combat ça dépend rek ça dépend rek niñ ko sant. xam waaw waaw xam naa buñ buñ buñ buñ cabee benn xale ñaar waaw mun nañ mun nañ mun nañ ci boo xoolee presque ñaar ñoo fi des buñ cabee ñaari kañ. ñaar wala ñett et puis yow koo fàtte sax xale bu lëj Siteu. non yow coow non non yow non yow da nga non xam nga lan ma jaaxal. yow yow dafa mel ni yow dañ ko déggoon ci ay waxam bu yàgg ni mu ne moom du bëri ak Modou ndax Modou Lo grand frère la moo tax moom kenn boole ko ci ci lim bi. Eh. mën naa nekk. wala daal damaa bëgg tey xale yi am coow yi xale yi la boole leen ci parce que Modou Lo tamit bu fi tekkee ba taxawal xale yi loxo xale yi am coow yi Siteu ñëpp nangu nañ ne c'est le plus populaire. de l'arène ëpp coow te lamb coow la ak popularité moom la ñuy wër. Sa Thiès dafa am coow ñoom ñaar seen Lo. Modou Lo ñëpp la amal affinité. mais si te moom dafa daan fan la ko seeti. ah si te dama loolu moom maa ko seetaan moom. seetaan dafa demoon mariage seetiwu ko de mariage moo fa amoon magam di takk takk kër Modou. kon Modou Lo mën na mais bul ne def ko seet si mel ni jóg peut-être jóg seet si non non. ok seet si ko mariage moo fa amoon kër Modou benn mbokk si moo doon takk kër Modou. c'est normal mu ñëw te ñoom ñaar jàmm lañ seq daje ci làmb ji muy rafet te Modou ñëpp lay seqal lu rafet ñëpp la ko seqal hmm. mais nag loolu leneen la parce que Modou Lo làmb da koo tënk ku gaa yi bëgg bëri bëgg combat am rek buñ ko seeti jee amateur yi bëgg ko rek da ciy day ko da koy accepté parce moom làmb lay dund làmb làmb la fi nekkal. voilà moo tax bugguma ne du bëri kii kee du bëri à part rëg-rëg rëg-rëg moom dañ ci catégorie. mais lan moo tax ngeen bañ rëg-rëg lan la. parce que franc dañ ñun dañoo gis combat am ak franc moo taxoon li ma la wax on peut pas vouloir quelque chose à son contraire mënul nekk muy ñu bëgg combat am ak wàcc di ko jël. non boo bëggee ñu coupé émission nel moo tuddal Modou ragal Modou ragal moom <laughs> ragal bii waaye man de bëgg naa ragal ragal bii di dóore ah, xam ni combat boo xamante ni ñu ngi waxtaanee ngeen defar. non yi ñuy waxtaanee yëpp yi ñu doon waxtaanee moom mu ngi tëju ci Ama Balde Modou Ama fa la waxtaan tëjoo la waxtaan farankulaaye lamb joo xamante ne sax booy parcelle ñemewuñu woon ñëw état bi ñëpp tiit mhm. ndax coow ampleur tension ñu génn foofu nga may wax dëgg rek non moom ba pare pour de dire gis nga waa caaro yi bëri yu discipliné lañ ak seeni supporters ñoom ak yoof du ñu bëri ba agressé wala ñuy pëndal non non loolu moom dama koy wax de passage parce que làmb day jeex bu dee ñoom la damay jaar nii ñibbi bu dee mbëru yoof yi bu ñu doon dañuy dox ba kii damay jëlante ak ñoom dangay dox ba yegg am na bëri xam ne bu ñuy bëri ñemewu ma jaar ni mais làmb coow la tension. da ci am solo ko jërëjëf kontaan nañu waa di sant ñëpp di gërëm ñépp di gërëm El Hadj sama doomu ndey di gërëm roi des arènes bu baax a baax a baax a baax ndax euh, dafa neex a àndal dafa neexa a àndal euh, vraiment ku bëgg sport ku liggéeyal sport li Mansour Ba di wax rek war na am luñ ko jagleel parcelle dafal ko monument wala dara mérito na ko. te làmb da koo mertoo ci làmb ji ndax Modou dafa jàppale promoteur yu bari jàppale ay mbër yu bari fonk ay rakkam yéene ay rakkam te defe naa loolu rek la ñuy soxla ci nit yéene ñun ñu mu àndal ñii ba pare di ñu jàppale teg ñu loxo bu baax a baax dañ koy ñaanal li mu bëgg ak li mu mbébét ci làmb ji yàlla na ko yàlla defal bi mu jëlee titre bi doyal jox ko ay rakkam séddale leen ko te incha allahu rabbi noonu lay demee. mais xamu leen woon tic ci lëx ci combat bi tuuti rek bu ngeen déggoon euh, ñenn ñi ci ci ci maaraay naan euh, ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang fatoon na fépp tiitoo leen woon tuuti. xam nga maaraay dañuy wax te ñun xamuñu leen mais muur dañoo ànd ba balaa muy am licence. te làmb ju ne daf ma naan lii barke Seydina Muhammad man moom laa gëm barke alxuraan dama koy daan damay daan dama koy daan billahi wallahi wa taala barke Cheikhu Tidiane damay daan ama damay daan Boy barki alquranul karim maa ngi moom rek laay toog voilà jërë ngeen